Omar Diagne ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay euh, Elisabeth euh, di leen sant di leen gërëm si seen choix bi ngeen def pour ma waxtaan ak yéen ce matin. tey ñuy dalal di fàttali ki jiite SOS littoral ñuy wax ci euh, li nga xam ne moom lañu nemmeeku bu yàggul jëm ci aéroport Léopold Sédar Senghor. mu am mhm. pàcc bi nga xam ne jamono ji bu ñu sukkandikoo ci benn communiqué bi doon xamal leen xamle ne ñoo ngi door ay opération viabilisation. ak mhm. commercialisation 30 hectares ñu bëggoon mhm. leen laaj yéen ñi nga xam ne seen xeex jëm ci suuf si la ak morcellement lan ngeen ci xalaat waaw liñ ci xalaat moom wax nañ ko état du Sénégal ah uh-huh. alors euh, man ay politique am vraiment en terme de gestion foncière moo loolu moom ça laisse à désirer. Mm-hmm. Euh, depuis les années 2000 la ñu waroon anticiper parce que chaque euh, virage euh, hein, de cent ans à cent ans. Mm-hmm. mais il faut savoir anticiper là on est dans l'ère du numérique et de la digitalisation. waaw waaw oh, excusez-moi baal mm-hmm. ba léegi nag suufu eh, eh, aéroport bi. mais état du Sénégal biir Sénégal ñun loolu ñu ngi koy wax depuis vingt trente ans derrière la war a liggéey xam nga mais mais mais Dakar xat na. Mm-hmm. Dakar euh, amul euh, assainissement bu baax. Mm-hmm. Dakar les quartiers spontanés maanaam quartier état bi du fekkee sax bu ñi ñi di tabax zone non édificante yi ñu warul tabax ñi ñi dañ koy mais aéroport bi bi ko Mamadou Diop di clôturer. Mm-hmm. alors ñun fii la ñu fekk parce que ñun Wakam lañ dëkk fii lañ màggee suñu cosaan yëpp fii la. bi mu koy clôturer jëlee ko Ngor. jaar Yoff aw Wakam dem ba Cissés xam nga loolu rëy na de. Mm. ñëpp gis nañ ko. Mm. alors euh, pour des raisons de sécurité mais aujourd'hui comme euh, aéroport Léopold Sédar Senghor bi jël nañ ko ñu yóbbu ko Diass. ah mm-hmm. mais Sénégal benn aéroport rek la am. xam aéroport bi mënoon nañ ko fi bàyyi sax seet Diass euh, aéroport Blaise Diagne fan lañ koy def fu gën a sori mm-hmm. parce que boo waxee ñu ne ñaari aéroport mënul nekk diggante fii ak Diass mm-hmm. mais xoolal dëkk yi avancé yëpp ñaati aéroport lañ am ah voilà no mais il faut ñu xool li ñuy def ñu am aéroport bi rek bon balayé ko après di ko joxe kër kër kër kër mais Sénégal kër kër kër kër alors fii boo xool bu xoolee aéroport buñ ñu ko defoon comme Central Park par exemple mais tey jii Dakar dina am. Euh, kii un poumon vert boo xamante ne di de ce nom ah avec aménagement yi war yëpp mu bakkee ne ñi ñi di fa daagu di dem mais li si am solo si loolu mooy pollution gasoil bi am Dakar ah ak xataay bi am mais loolu bu buñ defoon fii un poumon vert mais euh, xam nañ ne garab mooy aspirer le CO2. Mhm. mooy aspirer le CO2 euh, maanaam gaz carbonique yi mais population Dakar yi ñu noyyi sax. Mhm. mais bu ñu tabaxee fépp mu xat. mais ñii ñi dañuy am ay problème de santé publique mhm. alors Dakar kenn mënatu fi daagu si fenn boo gisee ñii ñi stress bi di leen bëgg a rey AVC yi di leen bëgg rey parce que amuñu benn bien-être au niveau de l'habitat donc politique gu habitat bi baa voilà man euh, li ñuy ñëw fii di et puis CDC encore caisse de dépôt de consignation mais état bi léegi état bi mooy jaay ay suuf pour am xaalis voilà et encore euh, délit li ñuy wax délit d'initié dafa am si biir euh, Sénégal moo tax corruption bi alors ñu ñu ñu ñu ñu les organisations qui euh, contrôle la corruption dans les pays comme ñu mel ni ay Transparency mm. mais Sénégal est quatre-vingt-dix-huitième les dernières d'après les dernières publications mais Gambie sax moo ñu tene léegi mm. Guinée-Bissau moo ñu tene euh, fële moo ñu tene Cap-Vert moom waxuñu ko ay Mauritanie mais la la la là il y a un problème kon yéen daal àndu leen benn yoon ci li ngeen jàpp ne dañuy euh, daggat ay suuf mm. non di daggat ay suuf waxuma la di ko di ko joxe à tout vent mais waxuma la encore ñu naan dañ koy jox ay caisse de dépôt de consignation pour seet xaalis. mais bu ñuy bëgg ndax yéen am ngeen firndeel ne opération bi sax jébal nañ ko commission contrôle opération. Euh, amuñu si benn firnde mais comme ni ma ko waxoon si français bi xam nga euh, que kii euh, état. Mhm. buy organiser ay service am. ma Macky Sall bu tokkowee fële mais bu defee injonction yooyu kii même bu ñu leen ko joxul woon il suffit que la presse yëkki ko rek. xam nga lan la ñuy def. Hmm. dañuy daw def seen i anti-datage euh, wax fonctionnaire yi def injonction si yenn fonctionnaire bi wala ñu dàq leen seen liggéey. Ah, mais du weesu du am yu jaar yoon ndax gis nañ li fi xewoon ca Dakar. dëkk mais li fi li fi li fi jaar du mu ngi nii ne fang si fii lu si nit def lu si nit man mu ngi nii donc euh, dëkk bi daal. bon suñu suñu justice sooxe na bon nit ñuy gouverner sooxe na bon ñun wax nañ ba bëgg a population yi aussi il faut que ñu yeewu man yaakaar naa ne daal euh, dañuy continuer di alors euh, di tàggat population yi si wàllu xol yi tubaab di wax bâtir mm -hmm. une masse critique pour que vraiment je pense que bu ñu arriver benn benn niveau mhm. alors euh, au niveau du peuple baromètre bi peuple bi la ah. benn peuple bu ne nii ñu ne 65 pour cent sont analphabètes. Mm-hmm. mais je pense que suñ continuer di ñaax ñi mm-hmm. alors ñi di yóbbu seen i école. ñi di gën a ubbi seen xel ah. alors euh, je pense que peut-être bu ñu yeggee fenn fii comme ni ko Marx si doon quand l'idée pénètre la masse elle devient une force matérielle. c'est-à-dire bu ñu yeggee fenn fii benn degré euh, boo xamante ne population bi ñi conscient ñi xam bon je pense que bu ëllëg bu boobaa bon euh, état bi du du naxati population. processus boobu dafa laaj sensibilisation tey jii ci mbir mi ndax yéen SOS littoral am na taxawaay gi ngeen ci fas yéene taxaw. mais looloo tax ñu tuddee SOS littoral et biñ laataa tuddee SOS littoral. Euh, dañu jógee ci benn entité association des volontaires de l'environnement mu ngi fi ba léegi d'ailleurs. Mm-hmm. ah alors euh, amoon benn projet. alors euh, bu ñu doon développer Wakam euh, muy plaidoyer sur la gestion des ressources naturelles ah. mooy bi UICN tegee son plan décennal. Mhm. léegi man si laa amee xalaat Mansour Soroat approché ma ak Atepa bon ñu créer SOS littoral yaa ngi dégg Elisa ah. voilà noonu la SOS littoral juddoo mu nekk euh, une structure de plaidoyer spécifique pour le littoral mais évidemment après ñu ubbi ko pour les terres du continent. Mhm. sensibilisation moom la ñuy def jour et nuit. ñu ngi koy def individuellement parce que ñi nga xamante ne boo xaw nañ jàng tuuti seen xel xaw na ubbeeku tuuti ñoo war a tirer les autres ah du gouffre ah bon ñëpp ñu ngi koy ñëw ñi koy def bëri na donc on sensibilise on ñu ñu waxuma la sensibiliser sax on travaille sur l'éveil des consciences mais depuis depuis depuis depuis l'âge adolescent voilà donc euh, noonu lag demee quoi donc euh, et on n'arrêtera pas parce que c'est un devoir impérieux alors euh, nit da ngay jël sa dund mais nga am un idéal de vie et loolu c'est un idéal de vie c'est un choix de vie comme ni ko tata Marie-Angélique Savané dama ko waxee lors d'une petite discussion mhm. voilà mu am beneen projet bi nga xam ne Sénégal tamit euh, mu nga ca muy projet de construction benn usine euh, de dessalement nekk fii ci mhm. Mamel euh, ñu gis ci seen taxawaay tey ji projet baa ngi dem mhm. ba tey fu ngeen ci toll yéen bon fi si toll mooy opposé wu nañ depuis le début de ce projet 2013 euh, déjà mm-hmm. alors euh, saisiroon nañ ah, donc euh, la JICA saisir euh, ba si président de la République mm-hmm. ñi ñu waroon bind bind lañ leen xamal leen ne ànduñu si projet bi mais ñun luñu ay nii liste quoi maanaam lu ñu fi bëgg a def ñu ne ànduñu si non mm-hmm. ñun dañuy wax ànduñu si. parce que lii ak lii moo tax ànduñu si léegi jéem leen ko defe nii parce que boo waxul boo defewul noonu pour boo deful proposition bon dañuy wax sax yow xamuloo li ngay wax lan la. Mm. parce que doo am argument. Mm-hmm. alors projet boobu dafay yàq géej xam nga léegi géej bi bon jën manqué na si. Mm-hmm. Ah, projet boobu mënul nekk zone mamel yi parce que foofu dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dañ ko c'est si site protégé et cetera et cetera. bon buñ ko toxalee daal ngeen ànd ci. no buñ ko toxalee sax ànduñu si mais xam nga ñun bon lu si suñu ànd ak suñu ñàkk ànd mooy mooy tere def ñi ñi fi nekk fii liñ bëgg a def. Mm-hmm. mais dañuy wax ne ànduñu si d'abord. maintenant bu mënul ñàkk parce que xam nga ñun aussi ñu o cœur des affaires. Mhm. xam nga mhm. voilà bu ñe ñun bu ñu ñee ànduñu si ànduñu si. bon ñu ñuy servir na ñi duñ sax ay jullit parce que ndox bu sell lañ bëgg jox ñi ñi ñi duñ am lu ñu jàppee tu vois ni ñuy yàqee suñ der est-ce que comprendre nga li mm. donc voilà un peu euh, kii et ñoom ils utiliseront tous les arguments pour jeter l'anathème si ñun pour yàq suñu der si côté boobu moo tax ñu ne ànduñu si mm. li moo tax ànduñu si léegi bu mënul ñàkk yóbbu leen ko feneen foo xamante ne il y aura moindre dégâts mm. alors dañ si àndul benn yoon parce que dafay yàq géej zone d'épicentre marin lañ ko teg xam nga dans un site boo xamante ne c'est protégé patrimoine historique fouille et découverte monument classé et patrimoine sacré mm-hmm. ñu si parce que bon saumure boobu muy génne déjà Sénégal sax coût de énergie am enfin Sénégal ngi ni xuy kamej tous les jours on a des problèmes d'électricité mm-hmm. ah mm -hmm. l'électrification rurale demul fenn ñetti potu lampe la ñuy teg si di si si village yi mu jeex donc nañu il faut que ñu ñu ñu arrêté yi ñuy def quoi. Mm-hmm. alors bu ñu tegee projet bi fii le rapport coût énergie mais kenn xamul lan la xam la le kilo heure boo ko calculer par rapport au débit bi ñuy def euh, débit du mètre cube par jour. Mm-hmm. mais coût bi le coût bi ñun def nañ calcul yi wax naa ko am na débat bu ñu invité si benn télé waa SONES ñëwuñu. xam nga fekke naa leen audience foraine fii si si si si mairie Wakam wax leen ko te c'est des arguments scientifiques yu ñu dindul mhm. le rapport coût d'énergie de ce projet Elisabeth mhm. alors dans les quinze prochaines années projet boo xamante ne cent trente sept milliards de financement la dans quinze ans dafay am un surcoût de cent cinquante milliards mhm. xam nga projet boobu c'est inefficient voilà donc te li may wax nii ñoom ñoo bind seen document ñu exploité ko génn ci loolu. Mhm. ça c'est le rapport coût énergie. soo demee la dimension environnementale du projet. Mhm. mais foofu c'est un chaos c'est une c'est une c'est un désastre. désastre désastre ils vont covider la mer en quelque sorte comme on est en période de Covid saumure boobu dafay rey des phytoplanctons et des zooplanctons mhm. donc euh, te foofu la maillon alimentaire bi nga xamante ne mooy dundal géej foofu lay commencé xam nga ni ma donc dañuy dañuy def dañuy briser la chaine biologique dañuy def un créer une rupture biologique. Mm-hmm. donc euh, ay jën dootuñu juddooti. xam nga voilà dafay mel ni une femme qui est stérile qui ne peut pas euh, donner un enfant donc ñoom loolu la ñuy créer ji si géej gi ñun nag suñu suñu rôle mooy addu bi ñu war a addoo mm-hmm. ah, beneen bi bon euh, beneen bi gis nga projet dafay juddu tey dee ëllëg donc dañuy yàq si zone d'épicentre marin lañ nga teg géej bi yëpp la ñuy détruire quoi voilà donc projet boobu daal ñun yooyu lañ si wax am nañ ay arguments cent quatre-vingt mille arguments wax nañ ko. Mhm. dañu sonn si wax sax. alors maintenant bu mënul ñàkk comme ni ñuy wax nañu désengorger Dakar tout ne peut pas être à Dakar te dinaa la wax bi. Mhm. dañ ko waroon jël yóbbu ko fële au grand large. mais grand large ndanda foy foy bii nekk fii diggante euh, la VDN prolongée jëm ba Saint-Louis kenn dëkku fa xam nga jaar ay lompul juba du jubal géej gi foofu la ëppee foofu la euh, gën a mhm. ma wax la lu si projet yu mel nii. dañ koy def fii xam nga di ma mm. xam nga gis nga périmètre foncier bi nekk si côte Dakar bi si ah. mm-hmm. mm-hmm. ci littoral bi. Mm-hmm. périmètre bi mètre carré yi day joge entre euh, un million dem ba deux millions. xam nga maintenant bu ñu bëggee enrichir enrichir wu commettre le délit d'initié dañuy déclassifier euh, un une zone dans le littoral. maquiller que avec un projet après jaay suuf si champ de tir bi maa ngi bëgg a dem léegi réunion si affaire u champ de tir bi champ de tir en ce moment il y a mille et un morcellement morcellement bi ma mujjee alerté démb. Mhm. ni ma ñoo mètre carré bi mooy bi gën a féete avec euh, complexe Al alors mètre carré c' sept cent cinquante mille à neuf cent mille yaa ngi dégg. Mhm. Euh, mais calculer loolu un mètre carré à neuf cent mille nga multiplier que par kii dire aujourd'hui littoral bon loolu moo nekk fii moo tax la euh, spoliation des terres du littoral am moo tax littoralu Dakar bi fattu moo tax ñuy jël projet bu ne di ko dugal ci biir naan ay Radisson Blu fii ay Eden Rock fële ay Waterfront fii Baobab les Mamelles fii tey usine de dessalement fële euh, usine de dessalement parce qu'il a un nouveau régime parce que buñ ñëwee il faut ñu jéem a ut koppar mhm. alors buñ demee fële Pataar wala Ñaaxaar wala Langaar mais mënuñu fa am xaalis tu comprends c'est pourquoi le développement il est plombé dans dans dans dans ce pays là. Mm -hmm. voilà loolu yooyu yooyu moo si ne quoi alors euh, yooyu moo si ne Elisa et jeexal na xol. d' accord nañu wax ci réserve Popenguine bi waaye waxtu wi dab nañu. Euh, Omar ñu lay jaajëfal bu baax a baax. yow nga jiite SOS euh, littoral. c' ça. merci beaucoup monsieur Diagne. je vous en prie merci.